asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte ak kontaante saa suñuy jàkkaarlook yéen ci l'émission des émissions di nuyu mbokk yi nga xamante ni bi ñu ngi ci biir réew mi waaye aussi di nuyu mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci bitim réew di am ci ñëpp mbégte ak kontaante di nuyu ak a ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziyaar bu wér wér di nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër gaa njaboot ga yëpp di nuyu équipe technique bi nga xamante ni bii moom la àndal ci l'émission des émissions di rafet lu bu baax sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu di ñu bàyyi xel saa suñuy jàkkaarloog ñoom. di rafetlu xalaat yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati ñenn ñiy rafetlu sunu xalaat ñeneen ñi naan ñu dolli leen ci lii ñeneen ñu naan ñu jum ngeen fii waroon ngaa na mën a wax lii ak lii loolu mooy li nga xamante ni bi mooy defar mbir parce que faw lépp daal am ñii la jubbantil ñii la baax na ñii la lii ak loolu mooy li nga xamante ni bi lu jag ci àddina loolu la jagal mbokk yi tey dinañ waxtaanee li nga xamante ni bi xew na ci pénc mi danañ ñëw ci ki nga xam ne mooy Ali Khoudia Diaw sociologue nekk ci administration bu sénégalaise génn yëkkati ay kàddu wax wax yu am solo wax fi réew mi jëm ak fi mu toll lan moo ciy gis-gisu autorité yi ci lan la administration bi nekk ci jamono ji nekk nii muy génn boo xamante ni bi génn bu am solo la daañu ñëw ci kanam déglu ko ngir faram-fàccee. leeral joxe sunu xalaat ci li nga xam ni moom la wax ginnaaw loolu dina ñëw ci ñi nga xamante ni bi ñooy tubaab yi ginnaaw bi Ousmane ko waxee ak ñi nga xamante ni bi ñooy africain yi nan lañ gisee discours bi nga xamante ni bi le premier ministre Ousmane Sonko amal na ko jagleel ko Occident ñoom ban dégg-dégg lañ ci am ak ban gis-gis lañ ci am ndax ñoom ak ñi nga xamante ni bi tey ñoo nekk ci réew mi ñoo bokk gis-gis wala bokkuñu gis-gis loola it danañ ci ñëw ngir daal dee leeral waaye dinañ ñëw it ci Ousmane Sonko premier ministre moom ci jëmmi boppam mi nga xamante ni bi laataan li lépp di xew amoon na beneen gis-gis boo xamante ni bi waxoon na ko jëmale ko ci ñi nga xamante ni bi ñooy patron de presse yi ak ñi nga xamante ni bi noonu la ñuy fonctionner ak ni ñuy doxee nit ñi toje seen bopp jinax naka lañ koy defee loolu yépp nekk loo xamante ni bii sabab na tey li xew ci pénc mi daldi di ciy xew mbokk yi dañuy ànd ak waa régi alaaji Modou Diouf déglu ki nga xamante ni kii mooy Ali Khoudia sociologue nekk ci administration bu sénégalaise kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci doxalin beeg gis-gis bi nga xamante ni bi moom la sunu autorité yi nekke ci jamono ji nan la ko gisee ñu déglu ko daa dee ñëw je vous en parce que le premier ministre Ousmane sunku daf leen a teg pression. bi mu ñëwee li mu njëkk a ci mais mm. il a fait une lettre. Mm-hmm. waaw c' était pour nous préparer. fonctionnaire du Sénégal bu êtes la cheville euh, de l' administration et cetera. après lañ jot les des Mm-hmm. La première semaine, c'est de faire un plan d'action sur 5 ans. Les actions prioritaires, basées sur le dernier PAP, plan d'action prioritaire, 2018-2023. Document de planification, il a demandé les programmes les plus prioritaires pour les 5 prochaines années. Tous les ministères, les gens ils travaillaient de 9h à 20h. Les SGI, ils ont coordonné les travaux. ñu nekk ci ba pare. Ah. les gens certains ont ont cinq jours peut-être ñenn ñi def nañ une semaine ñenn am ñu def dix jours. Mm-hmm. avant loolu di jeex ñu jotaat une deuxième conseil faites-moi maintenant un plan d'action. sur un an un an. rapidement sur les chaque département les trois actions les plus prioritaires. les résultats attendus le budget prévu. Mm-hmm. et la chronographie. ñu def ko en trois jours quatre jours. Mm-hmm. toujours sous la direction des rg et des directions techniques. bu amee dans un ministère ministère santé loo fa def te jaarul DPRS c'est pas bon c'est pas validé ñu defar loolu en une semaine des documents de cadrage extrêmement fins envoyé ko ñu jotaat une troisième consigne maintenant participer à la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko moom amagul bilan mais il va se baser sur ce qui est résiduel mm-hmm. Ah, ah, mm-hmm. Ah, ci lay basé moom pour def ses propres mm-hmm. projection ñu delluwaat plan Sénégal génne axe yi génne orientation yi def cadrage budgétaire bi loolu lañ ko envoyé moo tax sànq ma ne leen d'ici les cinq ans il a tout ce dont besoin les actions les plus prioritaires am na ko léegi ce qui reste c'est d'encadrer la vision c'est-à-dire bu ñu ne le projet c'est pas le projet tout court c'est un projet de souveraineté nationale administration du ay caaxaan moo tax su ma déggee ñu naan ñii dañ doon def appel à candidature yooyu dama naan waa ñii xanaa duñu ay sénégalais nii nii ils ont reçu plus de 3500 CV te te ñi ñi ñu jël ñëpp envoyé nañ seen CV de ba ñu xool ko ñëpp Sénégal ku ñuy jël dinañ dinañ wot sa CV dinañ def enquête de moralité def nañ ko de jërëjëf professeur Aly Khoudia Diaw ci kàddu yi nga xamante ni bi moom la yëkkati moom la sociologue Ali Khoudia ñuy félicité aussi tamit euh, Seneweb ci émission bi nga xamante ni bi amal nañ ko mu nekk émission boo xamante ni émission bu am solo la parce que gindi nañ sénégalais yi ci ñi nga xamante ni bi ñooy autorité yi naka la ñu tàmbalee di liggéey lii dafa am solo ngir leeral lu ni mel euh, lii nag moom la réew mi soxla ci jamono jiñ toll nii nit ñi xam ana ñi ñu fal ci lan lañ ne débat yi dafa am solo jël ñi nga xamante bi ay technicien lañ ñi xam ak dekk ci administration beeg yu ni mel ngir ñu xamal nit ñi yoo xamante ni bii tey dañ leeral gis-gis dama gis sénégalais yu bari partagé ko gis ay patriotes yu bari partagé vidéo bi ci lii lañ war a woo bu ne mais boo seetee dafa am ñenn ñoo xamante ni bii tey dañu nekk ci média yi euh, ne lu baax lii moom danañ fexe ba suul ko ci jamono ji nga xam ni Ali Khoudia mi ngi wax lii nga xamante ni bii ñi ngi nekk ci mbay mi war jubul ci nawet bi ñu xam ni ñi ngi jëm ci li nga xamante ni bii mooy wàllu inondation lu ni mel météo wax ni ren ndox mi war naa bari ñu war a def yitte naka lañ mën a duggee ci nawet bi génn ci parce que émission télé yi dañu suivre yëf yi naka la war a mën a demee parce que dañu war a anticiper yëf yi du ñu bàyyi ba mbënn am rek walla ba nawet bi. ñëw rek ñuy soog a wax yëf yi mais maanaam ni gouvernement bi anticiper mbir yi noonu la ñi nga xamante ni bii tey ñooy télévision yeeg yooyu waroon a suivre yëf yi parce que loolu lenn la ci seen ab liggéey mais ñi ngi nekk ci ay détails yoo xamante ni bii ay détails yu ñàkk solo ñàkk fulla te dañ ciy wax ba géex ba ñi nga xamante ni bii ñi ngi wax lu am njariñ wax la ne la juróomi at yi ci kanam administration bi tënkal nañ gouvernement bi fa ñu jëm lan mooy priorité ak naka lañ ci war a taxawee pour anticiper yëf yi pendant ce temps média classique yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñi ngi ci mbir yu ñàkk solo di ci wax bay géex et pourtant dañuy defe ne ñi ngi wax li ñuy wax xam-xam la xam-xam mooy li nga xamante ni bi moom la Ali lim ñu xamal ñu xam ni kat sunu nguur gi ñu fal nelawuñ waaye li leen gën a yitteel yépp mooy jafe-jafe ak coonoy sénégalais yi te ñi ngi ci guddi ak bëccëg mi ngi lay wax administration bi liggéey bi nga xamante ni bi moom la ñuy liggéey ak taxawaay bi nga xamante ni bi moom la amal loolu nag nekk loo xamante ni lu am solo la ñuy félicité ñi nga xamante ne bi ñooy askan wi nga xamante ne bi fexe nañ ba vidéo bi nekk vidéo bu viral partagé nañ ko fépp sénégalais bu ne fexe ngir mu jot ko ngir nit ñi xam parce que lu mel ni mooy li am solo lii lañ war a partagé pendant ce temps bi ñuy wax lii ak fa ñu jëm nga xam ni fan yëpp le premier ministre mi ngi amal ay ndaje di wax ci mbay mi fañ ci war a jëm président jox bopp mbay mi fan lañ ci war a jëm politique bi ni mu ko war a defee nga gis ni lu jëm ci wàllu sécurité ministre de l'intérieur mi ngi ci te commencé mi ngi mi ngi taxaw ci yëf yi pour bëgg a sécuriser nit ñi nga gis ni ministre bi nga xamante ni bi moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu euh, alom geeg yooyu mi ngi dem di visité ay mbëbës yooyu ngir xool nan lañ war a mën a def pour mbalit mi nga xam ni moom lañ fay tuur ñu transformer ko journaliste yi ñenn ñi moom ñi ngi jàpp ni ñi ngi war a toog rek di wax wax yu ñàkk solo ñàkk fayda naan ay góor jigéen ay wax yu ñàkk fayda di tardeel population bi di leen nelaw loo ci ay détails ñu sant yàlla nag ginnaaw bi nga xamante ne bi gis nañ population bi moom am taxawaay boo xamante bi taxawaay bu am fulla lañ ñu am fulla am fayda parce que looloo waral li am am bu yeboo ñu xam ne mënuñoo divertir askan wi parce askan wi fal nañ ay njiit te pare nañ pour accompagner leen pour li nga xamante ni bi moom lañ digoon askan wi mu bañ a lajj yéen ñi nga xamante ni bi yéen a ngi foofu nag nekk ci détails yooyu bu yóbbu ngeen xam ni seeni détails la ñuy féliciter Ali Khoudia ci kàddu yi nga xamante bi yëkkat na ko lim ñu xamaloon taxamuñu ko wan ñu ngir ñu mën a am aperçu ci ki nga xamante ni kii mooy le président de la république politique bi mu teg ànd ci ak le premier ministre ak seen gouvernement yépp ni nga xamante ni bi noonu la ñuy doxee ci jamono ji parce que dafa baax ngir askan wi ci seen jëmmi bopp xam yëg c'est très important ngir nga yëgal leen donc ñu ngi ko ci sant di ko gërëm mbokk ya xarit yi premier ministre Ousmane Sonko dafa dalal Jean-Luc Mélenchon ci bi mu koy dalal sax yëkkati na ay kàddu wax ni parti Pastef moo ko dalal waaye du premier ministre moo ko dalal donte yëkkati na kàddu yooyu taxut askan wi faale ko jël nañ loolu yépp teg ci suuf gis nañ rek premier ministre moo ko ki ko dalal et pourtant ci njëlbeenu waxam waxoon na ni ki dalal Jean-Luc Mélenchon mooy président parti Pastef moo ko dalal mi ngi mel ni tey ñu ne woon ki nga xamante ni kii. mooy Khalifa Sall dalal na Jean-Luc Mélenchon wala ñu ne euh, Déthié Fall dalal na ko mais dugguñu ci loolu yëpp mais ñi ngi jëm ci li nga xamante ni bii daal mooy wax ni xoola premier ministre li mu def li mu def mais li am solo mooy premier ministre bi mu defee li mu def ba pare ba yëkkati ay kàddu jëmale ko ki nga xam ne mooy Jean-Luc Mélenchon Afrique dañoo tàccu Occident mer ñu déglu. ak ànd ak waa Rési teewlu te soog a ñëw indi ay leeral je vous en prie. Il y a eu une sortie, l'Occident euh, n'a pas à nous imposer notre, façon de penser. C'est vrai, dit Ousmane Sonko, sur toutes les euh, préférences sexuelles LGBTQ compris. Ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ. le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon. le prochain Cassius Belli quand même. Enfin, les mots sont, mmh. sont très très forts. Quand on entend ce discours, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le premier vrai discours d'Ousmane Sonko, le premier vrai discours politique. Eh bien, on se rend compte quand même que c'est un peu euh, euh bas les qu'une page est en train de se tourner au Sénégal, un défi immense pour la France, qui a déjà été chassée, rappelons-le, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Alors, Ousmane Sonko ça va pas être simple. Aujourd'hui, il est plus que prophète. Il est plus qu'adulé. Il n'est pas chef d'État. Mais c'est un Martin Luther King, par exemple, au temps, de, au temps de, des États-Unis, au temps de la ségrégation des États-Unis. C'est un Martin Luther King. Il n'est pas président des États-Unis, mais quand vous le voyez aujourd'hui, vous le voyez dans le panthéon des dirigeants des, des dirigeants des États-Unis. Donc Sonko a marqué l'histoire de l'Afrique, a marqué l'histoire du Sénégal, et je pense que C'est ce que nous devons, nous tous, nous devons aller à cette école de Sonko pour que d'autres talents qui sont sous l'ombre puissent rejaillir, puissent surgir, puissent émerger pour permettre à l'humanité de, de, de, de, garder, hein, de garder sa vigilité, s'il faut le dire. Une fois encore, Sonko et Faye nous ont fait rêver et je pense que l'Afrique ne sera plus sous cette domination occidentale avec ce qui se passe. Ça, vraiment, nous en sommes très, nous en sommes très fiers. Bravo à eux, bravo à la jeunesse sénégalaise. jërëjëf waa Rési ñi ngi am mbégte ak kontaante eh, di rafetlu bu baax yëf yi Ousmane Sonko bi mu yëkkatee kàddu yi tubaab yi nga xamante ni dégg nañ tubaab xam. mot bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko utilisé moo bi daf leen a jaaxal dañ ne mot yu fort la boo xam ni Ousmane Sonko wax na ko mu naqari leen lool ci li nga xam ni loolu la tontu ci biñ ko waxee mbirum ngóor jigéen taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci wane ni boo sàgganul Occident ak li des ci àddina bi daañu am jafe-jafe ci wàllu mën nañ ñoo dem sax ba yegg ci guerre ci nii ñuy impose seen ak ngóor jigéen gi ñu yor ñoom bëgg wax ne àddina bi yëpp nii la war a mel waxee lool ba pare nga gis Afrique am fierté lool mbégte ci seen doom wax ni kat Ousmane Sonko mii de. siggil na Afrique am na taxawaay boo xam ne moom la ay Martin Luther King amoon taxaw na taxawaay boo xamante ni bi wane na ni leader africain bu mat la te war nañ cee continuer sax jàng ci école Sonko bi ngir yeneen africain d'autres talent ñoo xamante ni bi looloo ngi nelaw ci moom mën a émerger ci Afrique africain yi feer ci seen doom nga ñëw senegal ñenn minorité lañ sax ci réew mi ñoo xamante ni bi ay problème u avantage seen gis-gis rombut seen bakkan seeni intérêt ñeneen ñi ñu di leen waxloo ñuy wax te ki di leen waxloo nekk koo xam ni rek ab dërëmam la yor rek jox la ko ne la li nga gëm moom bul ko wax waxal li ma gëm wala samay bëgg-bëgg nga ñàkk jom ñàkk fayda dem toog ci télévision yi di jéem a araamal lu dagan muy kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati ñu ne la araamal ko waxal ni kàddu yi baaxul nga am ñàkk jomu taxaw naan kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati dama ci ruus loolu ñàkk jom la parce que da nga cee war a fier mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu yu am solo la ñenn ñi xamuñu waaye dañoo bëgg a wane ni maay guerrier may jàmbaar maa am fit man maay songu waa ji danaa ko song nag waaw parce que jàpp naa ni li mu wax du noonu naa ko wax ba ñëpp xam ni man guerrier laa nekkuma koo xam ni damay topp Sonko weddi koo xamante ni gisoo loo ciy weddi loolu ñàkk fayda la dëgg bu jotee danga koy wax mais ñu xam ni dëgg la boo xamut dangay nangu ni xamoo ñi xam-xamal la waaye génn nga fëgg nga sa dënn dal ci kaw loo xam ni bi pënd bi wu wuree gàccal lay doon ci yow defe naa ni bu dee dangay ngay ànd ak nit naw ko dégg ko mu wax même boo mënta firi wax ji ñu firil la ko kii limaatal ci ñeneen ñu firil la ko balaa ngay jël position ne yaa ngi wax waaye làkk boo xam yow déggoo ko waa ji wax ci nga génn ne danga koy tontu njuumte mënta weesu loolu et pourtant ñooñu ñooy taxaw ne ñoo ñuy xamal ñenn ñi xam nañ waaye dañoo naa naafeq dañuy bëgg a jël li nga xamante ni bii mooy kii bi jéem a sëlëm nit ñi waaye yàlla daf ñu dimbali. ba léegi àddina bi euh, mu ngi ci sa portable fi nit ki di waxee ngay xool la xew fële bitim réew bu njëkk ba dañ ñu doon réel naan ñu tubaab yi nee nañ li tubaab yi nee la parce que ñu bari amuñoon woon accès eh, ci média français yi léegi nag nit ñi dañ ci am accès ñi ngi koy xool ci internet bi bis premier ministre Ousmane Sonko paree rek àddina bi ñëpp dañ cee jot ku ne ak sa commentaire. nga gis les africains bëgg kontaan daal ne xool leen li seen doomu réew mii wax ñeneen war nañ cee jàng nga gis li tubaab yi wax Occident mer daal ne ñun ngóor jigéen gi ñu bëggoon a watat ngir yóbbu ko fale dégg ngeen li ñu waaj wax nee na bu ngeen defu ndànk sax lii mën na nekk déclaration de guerre mën na indi ay jafe-jafe wax ko ci làkk boo xamante ni bii nag chroniqueur yu bari xamuñu ko muy latin dégguñu ko xamuñu ko ñenn ñi foofu lañ tàbbi donc ñu bari ñi nga xamante ne bi ñu ngi taxaw ci télé yi di wax ni xam nañ xamuñu xamuñu dara loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li leer mais nag léegi nag bu yeboo nag ñu xam ni ñu ngi toroxal seen bopp parce que bu fekkee ne li leen di weddi nekkatut Sénégal mais li leen di weddi Afrique ak bitim réew a leen di weddi wax leen ne leen li ngeen di wax du dëgg li waa ji wax lii la vraiment kon nañ xam ni ki ñuy waxal doonatut national international la ñoom nañ xam ni footballeuru ko lañ Sénégal sax buy dem coupe du monde wala muy dem kii day dem jëli ji footballeur boo xamante ni bi <laughs> footballeur bu international la donc nañu delloo siwaat xel yi te xam ni sunu borom li mu def kenn mënu ci dara Ousmane Sonko li mu am yàllaa ko may ku ko dangu wut toroxal sa bopp ci pénc bi te loolu mooy li nga xam ni moom lañu gis mbokk yi xarit yi Ousmane Sonko nag dafa ñu junjoon lu mel nii taxawaay bi nga xamante ni bii mooy bi média yi di taxaw ak façon bi ñuy chantage pour wan leen ne leen waa ji xam na li xew ci réew mi ñu déglu ko mu nekk vidéo boo xam ne du tey waaye démb la waaye dafa mel ni day tontu waxi tey je vous en prie. seen patron yi dem mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen si jox ñoom la ñuy waxal ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom une bonne partie de la presse bokk. problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool presse Sénégal nga xool presse Mali wala presse Burkina da ngay rus. c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul yéen ñu wax de yéen moom ñoo bokk coono. ñoo seen patron yi dem mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen ci jox ñoom la ñuy waxal. ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom. dafa am jamono. nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse. da ko daan dégg. même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp daawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moyen de presse de pression am na waykat bu ne woon euh, nu mu ko tuddee ouragan ëppal asamaan euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite woon ma feneen feneen dinaa liggéey ba am lu ma jëndee satellite nangam nangam boobu ngént gu yàgg la woon su ma juumul kàddu yi noonu la ñu jàpp ni ku am sa groupe de presse soxloo parti politique te yaay ëpp doole parti politique yi soxloo nekk président de la république te yaay ëpp président doole président la république bu ko defee mu doon moyen de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits présidents yu amul benn personnalité xaalis bu ne nga joxe ko naan na ñu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex jërëjëf <laughs> merci loolu dafa jeex loolu dafa jeex Euh, gis nga dafa am lu bari loo xamante ni bii tey presse bi defe naa ne ñu bari xam nañ ko xam nañ ni am na loo xam ni jeex na mënatu la ne euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ni bii tey mooy le premier ministre ànd ak son excellence président Bassirou Diomaye jaxaar Faye li ñu ne xam nañ ko parce que dañoo xam sénégalais yi. dañoo xam sénégalais yi ba noppi xam jeu yi nga xamante ni bii moom la gars yi daan jouer niñ daan doxalee daf koo xam te loolu jeex na képp koo xam da danga jàpp ni sa presse bi danga taxaw ngir nappaate wala xuuxal ko kaay ma waxal la lii wala ma defal la lii dafa am benn bis ndem si yàlla benn baas yàlla na ko yàlla yërëm euh, daf ma mës a wax benn bis ne ma. mbirum sondage dafa am benn waaye bu ko fekk bureau ne ko jox ma nangam ma def la paie mu ne ko lu ma koy doyee parce que benn baas nekkutoon ci ay paie ki deux ak trois loolu mooy li nga xamante ni bi moo nekk fii rek jox ma nàngam ma defal la dàngam li la nit ñi jox mooy li gën a wér loolu la Alaaji Sidi Lamine doon wax ne nguur boo ko jotee boo deful ndànk rek da ngay dégg nit ñëw ne la man maa la defaloon lii man maa defoon lii ba ngay jël nguur gi lii la mbir mi dootul doonati yàlla ak nit ñi la fal mais day am ay nit ñoo xamante ni bi day mel ni yëf yi ñoom la maa la ñaanaloon maa def nii ñenn ñi ñëw ne la sa liggéeyu ndey la ñenn ñi ñëw ne la lii ak lii ñenn ñëw ne la kaay ma waxal loolu bu baax kaay ma defal la lii yooyu mooy yi nga xamante ni bii tey moo tax président yu bari lañuy wax askan wi bañ fal leen bu ñu faloo boo deful ndànk rek dañ koy ñàkk presse bi nag dafa yëg ni ñàkk na loolu moyen de pression bi nga xamante ni bi amoon na ko yëg na ni ñàkk na ko te gisul ban bunt lay jaaraat pour mën a ubbi bunt yi ni mu ko daan ubbee looloo tax ñu daa dee taxaw taxawaay bi mais taxawaay bi da leen di rek taxawaay boo xamante ni bi da nga koy def tey say moroom yu nekk bitim réew gàccaal la loolu toroxtante la parce que le premier ministre Ousmane Sonko wax na ko nee na booy xool presse Mali wala ngay sol presse Burkina xool presse sénégalaise bi ni muy doxee dangay ngay rus li la koy wan rek mooy élément bi ma teg léegi ñëpp taxaw nañ ne dañuy ŋàññ foo xam ni dañoo waroon a tàccu fier ci seen doom li nga xamante ni bi tey Afrique nga koy tiitaru ñu war koo tiitaru mais ñu daa dee taxaw ne dañuy ŋàññ ku leen di dugal ci loolu mi ngi leen di sànq am na loo xam ne bu ngeen ko ñàkkee baaxul ci yéen presque crédibilité rek mooy li am solo nit ñi di wax li nga xam ni moom lañ gëm mais pas ay nit làqatu ci alal di la ci compal ngay ñàkk fayda dem toog ci ay plateau di wax yenn wax yi am na loo xam ni rafetul rafetul lii lu ñu war a tàccu la lu ñu war a saluer la Jean-Luc Mélenchon bi mu ñëwee amut lu ko neex ay mbokkam amuñu lu leen neex góor jigéen ñi mer nañ góor jigéen ñi mer li Cheikh Bara Ndiaye wax rek Mame Matar mi xeex mbirum góor jigéen góor jigéen ñi mer moom mu taxaw ne euh, day mer nan lañ mënee bokk combat ñoom ñaar benn discours kii ŋàññu góor jigéen ñi ba tubaab yi mer ne dafa ŋàññu góor jigéen ñi yow nga mere ki ŋàññu góor jigéen ñi c'est grave mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat encore une fois mbégte ak kontaan di gërëm ñi nga xamante ne bi ñoom lañu ñu àndaloon ci technique bi di joxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf